dama la rasulillah kon ñu santat yalla bu baakha a baax jullit yonentam bu tedd bi santat serigne touba ñaanal serigne muntaka basiru mi khalifa serigne touba yalla bayiko fi guddal fanam wéral ko suxat yenem, ba lepp lu nga xamni bëgg na ko liggéeyal maamam ju tedd yalla defal ko tawféex ba man ko motal te ñu andante ko euh niko maire waxe ci ndigal wala càkkutee foofu monsieur le maire adjoint Ndiamé Ndiaye mii toog damay jël kàddu ci turu maire de la commune Abdou Lahad ci turu conseil municipal bi wande ci turu population wu Touba yépp waaye ci turu Serigne Mountakha mi nga xam ni mooy kilifa dëkk bi te lu ñuy def lu ne nañu xam ni ndigalam ak ñaanam fekk nañu ca ni ko sëñ Mara waxee léegi ci laay yëkkatee ay kaddu. dalal ñi nga xam ne wuy si ñépp te mu doon lu nga xam ñun ko sakuan woon invité len ci yene bu nga xam ne état du Sénégal am ko andante ko ak ay nattangoom yu nga xam ne dañoo lëkkalikoo muy waa GGGA di ONG bu nga xam ne dafay jàppale état du Sénégal ci yene mu ànd ko ak ay euh, partenaire am yi nga xam ne dañoo ñëw fekk réew mi pour jàppale état du Sénégal ci ay dëkk yu nga xam ni bëgg na seenu yokkute maanaam gën a fés loolu nag ñoom ñi ngi ko tuddee croissance verte xëy na baat bi sax bu ñu ko jàppee noonu dañu naan ci jëmbati garab wala nangam nangam wànde bàyyiwul dara croissance verte vert moom naataange la bu ñee naataange nag bàyyiwul dara lépp lu nga xam ni doomu aadama yittewoo na ko ci wàllu dundiinam kon développement bu matalé lay laaj développement matalé laajul ben ponk bu nga xamni nit ki war na soxla kon lolu moy diego mission préparatoire stratégique bi nga xamni barki demb dong la ñew ci Touba fekk na amna ay taxaway yu ko jitu ci dakaru ci ministère de l'environnement nga xamni état du Sénégal moko ki pour lëkkale nak légui ñi nga xamni yépp war nañ ci am euh, ab taxaway fofu lañ ko defee won Morlo ak Serigne Gaynde Fatma mi nga xam ne mooy président wu commission de l'environnement représenté woon la commune de Touba te commune de Touba bokk ci yi ay tànneefi commune yi nga xam ne tànn leen ñu bëgg leen a boole ci lii ñoom ñoo teew woon ci jotaay booba wante jógaat nañu ñoom bërki démb ñëw fi dajeeg la commune de Touba le bureau municipal élargi aux commissions yëpp lañ ko yaataloon ak yeneen acteurs yi sax ñu bokk toog waxtaan ci euh, euh, euh, mission préparatoire stratégique boobu nga xam ni dafa jëm ci Touba ville verte loolu nag pour rappeler tuuti depuis 2017 euh, la dugg si woon Sénégal bi mu dugg Sénégal nak état du Sénégal tànnoon na ñetti commune yu nga xamni ñom lañ ko tambalé won pour expérimenter ko ñetti commune yoyu mo doon commune Tivaouane commune Kolda ak pôle urbain de Diamniadio wande biñu ñu toogaatee ko résultat yak ak yéene ja nga xamni ni am nañu ko ñom ñu dajé dajewaat waxtan ci ak yi ñu ko bokkal yépp ba légui ñu ciblé waat yeneen fukki dëkk yu nga xam ni bëgg nañu programme boobu mu law ji fukki dëkk yooyu nag Touba gii da cee bokk ak yeneen dëkk mën naa ko lim c'est-à-dire Fatick Kidira Kédougou Wulisoogu Daara Mboro Diawbe Cap Skirring ak Sédhiou Touba nag yaakaar naa ne bu ñu koy wax lu ñu yëkkati jëmale ko Sénégal état du Sénégal ak commencé par le président Macky Sall son excellence ak guvernement am ak taxaway bi Touba am ya ni bu ko ca bolé en tant que population de Touba mais en tant que commune de Touba ndax qui luñu yitté yittewoo la wax nañu ko fi Kérok, Touba ni bi ëpp na ci nu muy étalé population yi rek ni ñuy ñëwé tamit waxuma population bi fi nekk ni muy fulo waye li ci yenen gox di di ci dëkk bi ngir bëgg seenu yokkute parce que li qui indi Touba train nit ñi li indi loolu nag day indi lu baree bare bare baree bare bëri indi lu baree bëri nag lu jëm ci développement ñoom danañ ci dikk waa mission bi yaakaar bu ñu leen di expliqué xëy na euh, développement li ci gën mooy développement intelligent ni ko madame Mariama Mbacke doon waxee keroog c'est-à-dire ak yokkute waa ne yokkute gu ànd ak xelu xelu ndax bu ñu nee yokkute rek quelque part ni àdduna bi doxee nii ñu ngi laaj yokkute waa ne yokkute gu ànd ak ngaañ mi ngi am ci ni ñuy doxee te duñ ko sax seetlu xëy nak nag bobu motax mission bi ak niñu ñu ñom bëgg dik accompagner la commune de Touba ci yokkute gu nga xam ne day and ak xelu day and ak xelu loolu yit biñu ñëwé ñëwee biñu dajé ak le bureau municipal barki demb tay dañu bëgg les acteurs au développement ñu dajalé ak ñom aussi exposer leen processus bi nan lay démé motax d'abord les chefs de service technique gis ngeen leen ni ñom ñëpp ñi ngi fi ñi ngi leen di sant bu baaxa baax wax dëgg yàlla seen taxaway ndax ñom ñoy les bras techniques des communes collectivités locales yi mënuñu dem collectivité locale, yi mënuñu dem lu les bras techniques de l'état yi nek ci département yi nek ci commune yi ñëw accompagner leen parce que état ni muy doxé lepp luñu planifier la dañ ko centraliser la nguur ga décider ne ni lay démé ci askan wi fokk mu am ay bànqaas yu tok ci gox ya pour saytu loolu and ci ak collectivités yi di ci gindi loolu motax ñom seen toogaay bi wax dëgg yalla luñu rafetlu la tay dañ leen di sant c'est pas la première fois wax dëgg yàlla lu ñu fi massa a dugg ñëw nañu dugal nañ seen loxo ci seen xalaat seen ingénieur seen lépp di accompagner la commune euh, di leen sant di leen gërëm acteur au développement yi ni ko Mor wax ne ñu nu dajale fii doon na ci lim lu bari jarul ma ci dellu si ñoom xam nañu seen bopp waaye ñun aussi xam nañu ban dayoo lañ leen jox xam nañu aussi ban yitte lañu leen jox ba lii ñu nar a engagé nga xam ni au delà wu li ci commune bi di saytu état du fekk nag état du Sénégal euh, euh, xalaat ko yéene ko moom ak waa ji ji ba ñëw fii ci ñun la commune ñun commune bi kessé les 100 conseils yi que mënuñu ko mise en œuvre mënuñu ko xalaat bi xeyna fi dañuy dayo wante nak taxaway ba moy acteur yi nga xamni ño ñoo ñëw fii te xam nañu yëmul ci li amna na ñeneen wante nag dañ ci tànn rek échantillon pour ñooñu ñëw téw ci biir jotaay bi pour xam lolu après nak duplication bac nañu koy appliquer waat ci gox yenu fété kenn ku ci nekk bu boba dañ ci and ak ak ak ak ak mission bi and ci ak la commune de Touba pour que fenn fune buñu koy jëf lolu mëna daralé Touba gep ñëpp man koo yëgandoo waaye ne ñëpp jàpp ci jàppin mu nga xam ne jàpp engagement jàpp laxasaay jaayante ni ma ko waxee woon bërki démb parce que loolu moo ñu war loolu moo ñu war état bu amee yéeneem yëkkati ko indi ci commune bi commune bi ne waaw man de loolu baax na na commune bi laxasaayu wante population yi nañu yu jaayante ci lii ba li ci mission l'état bi yéene mission bi yéene ko maanaam fu mu ci dem fu ne na fa fekk acteurs yu nga xam ni vraiment danañu joxo joxe seen bopp ba ni ñu doon def bu ñu nee sëñ Saliou damaa sànni nañu dem xelkom ñepp ñëpp buubu ca li aussi gox bu ñu dugg lañu soxla ci information wante lañu soxla ci engagement pour que lañu fa bëgg jëf lepp mu mëna a na ñepp taxaw xamni ak jaayante ndax li ñu yëkkat indi ko kat mënoon na dem feneen nee fukki ville lañu ciblé ak ñett yu ñu kon expérimenté manon na dem ci yeneen commune kon nak ñun wëruñu ñu tànn ñu ñun wa Touba indi fi lu mel ni ñu cay xaaraka di day naagalaka di di di loolu moom war nañu dépassé loolu Touba war na war jóge foofu wax junj naa ko fi keroog lu bare bari ay yéene nga wax état yàgg na ko yéene ñëw fii yàqu gaa gàllankoor ba kat jógewul ci état ma ko yéene jógewul ca ONG ya jóge ci bitim réew wala feneen ak feneen def seen xorom mais toujours problème bi c'est au niveau c'est fii la amee yaakaar naa ne loolu nag jikko yooyu nag war nañ koo war nañ ko bàyyi war nañ ko bàyyi vraiment bëgguma monopoliser parole bi kàddug nuyoo rek la woon kàddug sant ñi fi ñëwoon la waane nag junj leen yitté ji nga xamni état du Sénégal amna ko a commencé par le président Macky Sall ak gouvernement am wande jaar ko ci ñi nga moy mission euh, mission euh, préparatoire stratégique bi nga xamni mo ñëw te ni ko Mor djunjé vraiment mu doon ñu nga xamni vraiment dañ leen tan am yaakaar ci ñom parce que yaakaar naa ni war ngeen ko xamni mako xamé du n'importe qui le état du Sénégal di yebal Touba ndax importance bi ñu jox dëkk bi ñom ñi yaakaar naa ni groupe de mission yi dem ci yenen gox geuw ma ni gëw ma ni maanaam ñoom ñii ba ñuy sélectionné dañoo tànn crème ba indil ñu ko ñun waa Touba maanaam ñunu ci ëpp yaakaar la preuve année que yaakaar naa ni soxna Mariama Mbacké mii rek maire laat ka mu ngi wax bërki démb c'est-à-dire bokk Touba am fi yéene bokk ci ku mel noonu nag ñu boole ko ak ay nattango mu ñëw fii Touba yaakaar naa ni bu dul woon dara sax waa ne moom dong war naa tax ñu ñu jaayante àndati ak mission bi ba lepp lu nga xamni ni nañ ko la bëgg nañ ko am en terme d'information wala d'implication engagement ci population au niveau de Touba vraiment ñu joxe ko bu mu mën waaw El Badar Dia mu ngi euh autant pour moi El Badar Si di sama turandoo moom mo jité mission bi and ak monsieur Babacar Dia di colonel Oyo Oyo Forêt moom aussi mi ngi ak Babacar euh, Diaw ñoom aussi ci mission bi la ak soxna Mariama ñoo ñooy ñoom ñeent ñi nga xam ñoo composé mission bi ñëw fii ci commune de Touba. ñëwoon Touba en rapport avec le gouvernement parce que suñu liggéey yëpp ñun na nga def en rapport avec le gouvernement moo identifié 10 villes ren pour ñu jàppale leen développer en ville verte suñu liggéey daaw la Tambalé, tàmbale Tivaouane Kolda ak Paul urbain de Diamniadio pour développer leen en ville verte ren ji euh, gouvernement bi identifié 10 villes. ci di ville yi Touba si la bokk Mboro Cap Skirring Saly mooy euh, yeneen ville yoo xam ne dinañ si jàpp pour ren suñu liggéey nag mooy euh, jàppale gouvernement bi ak collectivité locale am communes yi pour ñu mën a intégrer lépp loo xam ne mooy changement climatique seen développement si beneen anam ñu ngi koy waxee nii benn approche bu bees la approche de planification urbaine boo xam ni day intégrer wàllum changement climatique mais surtout wàllum économie parce que concept bi ñuy développé day permettre ak localité yu ñuy liggéeyal ñu mën a renforcer seen compétitivité économique maanaam lépp loo xam ni seen koŋ la day développé day leen permettre également ñu mën a créer ay emploi yu bees emploi boo xam ni fu mu am euh, day contribuer si aménagement territoire dëkk bi day contribuer si euh, sukkali yenn dëkk yi comme Touba donc ñun suñu liggéey si cinq axes la moom nañu wooyee pilier Ville verte boo koy développé da koy développé à travers cinq piliers ñun loolu noonu japp té loolu le gouvernement bi validé euh, premier pilier bi moy énergie si ñuy wax énergie nak lépp lu ci biir moy walum énergie renouvelable walum efficacité énergétique mëno def ville verte di utiliser énergie bi nga doon utiliser daw mooy énergie fossile énergie renouvelable dañu war utiliser lu si ëpp suñu mën a utiliser énergie renouvelable ñu intégrer efficacité énergétique si tabax bâtiment yi si transport bi si yeneen fànn yi pilier bi moy transport ville verte dafa war am système de transport bu performant bo xam du am pollution mais surtout dafa war développer transport en commun éviter que nit ñi di yore sen voie auto bop di dox di di doxi seen soxla te transport en commun waru fi mën am mais loolu dafa yaa laaj tamit ñu développer ay système de transport en commun yu performant euh, ville verte dafa laaj aussi ci biir transport toujours ñu bàyyi lu ñu utiliser auto di dox wala ñu utiliser vélo si yeneen dëkk yoo xam ne adapté na fa adapté na fa wala yeneen dëkk yoo xam ne comme Tivaouane wala Touba ñu utiliser calèche parce que mode doux de transport la maanaam transport boo xam ni du affecté environnement bi. troisième pilier bi mooy occupation du sol si biir occupation du sol lépp loo xam ne affaire urbanisation foofu la wàllum développer plan d'urbanisme wàllum am vision wàllum aménager ville bi wàllum environnement bu nu war préserver anticiper si risques yi ñu war anticiper ak catastrophe yi parce que tout ce qui est occupation du sol moi adressé chef de planification urbaine si fofu nak solo bu rëy boss am même walum logement bi dañ ko war a xool logement du seulement en termes de quantité mais en termes de qualité utiliser les matériaux locaux yo xamni ne lay permettre bo nekkee ce sa biir kër doo soxla taal lampe do soxla taal climatiseur do soxla taal ventilo te lool ay expérience amna na fi mën nañ ko développer bu féké mën amna nañu job bi benen bi moy walum eau et assainissement ñepp xamna nañu dans toutes les villes africaines, nous sommes les villes sénégalaises, donc ville africaine, l'accès à l'eau pose problème en termes de distribution. Vous voyez ce aussi de Kébifani. C'est du Sénégal, donc fait le. Donc, question accès à l'eau potable, donc une comme préoccupation majeure dans les villes. Mais Walloum assainissement, eau usée, inondation, fait plein. Eau artisanale, eau industrielle, même fait que à Touba, il y a quelque chose ñun on est dans une démarche prospective d'ici 2035 Touba war industrie yo xamni du war nañu anticiper seen implantation dernier bi moy walum déchet bu ñuy wax déchet solide moy tibb déchet yëpp yu am déchet agricole déchet biomédicaux yu jóge ci hôpitaux yi déchet électronique yu jóge ci caméra yi ci téléphones yi ci ordinateurs yi ak ci frigidaires yi déchet bu si gën am solo moy déchet bu ñu produit suñu biir kër yi te bobu dafa am potentiel bu reuy en termes de création d'emplois mais en termes d'énergie renouvelable parce que déchet à perception bu nu am si déchet nan war a changer déchet waruñu ko waratuñu ko considérer seulement comme mbalit parce que mbalit ressource la war a doon am na dëkk yoo xam ne dañuy importer déchet parce que déchet dafa ñàkk dañuy dem si yeneen dëkk jël seen i mbalit yóbbu seen dëkk pour produire énergie donc déchet ñun ñun koy traité dañ ko war a changer direct déchet xaalis la bu ñu koy tuur mbalit tamit bu ñu koy tuuri comme fu ñu am fii CIVD à Touba ñu war si mën intégrer yenn aspect yoo xam ni day créer ñu permettre ñu am emploi am énergie am électricité donc euh, yooyu suñ nous voulons am surtout suñu bëggee maximiser potentiel bi C'est biir kër yi lay commencé il faut que ñu dugal tri dans les ménages te nous foofu nañuy commencé le tri dans les ménages nit ñi di c'est bien kër ñuy tamiser suuf bon bana béy si mbalit yi parce que 45 des déchets soufflent la au Sénégal te lolu moy mairie bi ak état bi dañuy fay nit ñi pour ñuy transporter souf bu yakum xaliss bu reuy mi ngi donc il faut que nous dougal ci tout ce qui est tri dans les ménages la population parce que en fait projet bi projet pour changer comportement population la population. changer comportement si ñu qui ñu ñuy ñuy changer comportement si ñu ni déplacé pas, changer comportement si ñu ni yaxanalee énergie ak parce que ville verte suñ koy wax ci en toi, ville bo xamné moins d'espace moins d'eau moins d'énergie c'est du produit déchets yu dañ fay yàgg lool ci añ kenn prévoir ko ci njóobi ni am nañuy jafe-jafe kon xam naa du ñu gudd waaye rek di wax ne dañu fee teewal tey maire bi teewal fii le maire sëñ Abdou Lahad di ziyaare nag mbooloo mi ñëpp di ko tàmbali ci suñ sëriñ si sëñ Moustapha Mbacké Moussa di sëñ Xaadim Saam soxna Njóoba sëñ Mara Mbacké nga xam ne nii ñoom ñooy kilifay jataay bi ñu toog di wax ne mairie bi de am na njott lu rafet ci li nga xam ne nii moo ñu fi boole ndax liggéey bi niñ ko doore dafa tegu ci yoon ndax bër ki démb rek ñoom waa ji ji ay ñëw nañ fi taseeg mairie taseeg maire bi nga xam ne nii moom daa fullaal mbir mi ba moo tax moo ko teeweel boppam ak ñi nga xam ne nii ñooy parti technique yi nekk ci biir mairie bi njëkk a waxtaani mbir mi tey jii ñu ñëw di def lancement bi woowaat nag ñi nga xam ne nii ñooy ñin war a jàppale ci liggéey bi muy les services techniques muy partenaires yi ñi nga xam ne nii ak fu ñu mën a jàppee ci liggéey commune bi bonne volonté boo xam ne bii dafa xam ne rek moom war na ko pour mu taxaw ci commune bi jouer ci partition li ñuy waxaat rek mooy bëgg lool ci Touba niñ ko boole ci ville yi nga xam ne dañ leen tuddi ville verte nga xam ne projet ville verte lañ leen waajal mu doon ab projet bu am solo boo xam ne bi ñoom ñi nga xam ne nii ñoo koy piloté ñoo dee pilotage bi muy monsieur si ak le colonel Dia ak madame Mbacké Mariam leeral nañ ko fi mu ne nii xam nañ ne projet biñ indi fi ci Touba ñepp wax nañ fi ku fa wax wax nga ko ndax projet ville verte buñ ko tënkee moy ville bo xam bo fa ñëwé il fera bon de vivre ndax lépp dana fa daje secteur boo mën di laal dina fekk ne foofa réglé na fa problème am loolu moom c'est un idéal te jàpp nañ ne bu fekkente ne kenn ku nekk joué na ci partition incha allah loola dinañ fa àgg bu soob démarche bi wax dëgg yàlla ñun wóolu nañ ko ndax bu fekkee da ngay ñëw ci ab commune ne man kat li ma leen di indil man yoruma solution yi dama koy ànd ak yéen ñu bokk ko ñëpp ñëw kenn ku ne joxe xalaatam ñu seet nu ñu àndee ba déterminer suñuy problème dëgg-dëgg ay jafe-jafe ñeen am suñu paree nag ñu jéem a élaborer benn benn benn benn plan boo xam ne bii moom lañuy ñuy dérouler te loolu lépp dañ koy ànd ak yéen ñun dañu leen di gunge rek waaye nag su demoon ba nga xam ne bi nag soxla nag ay moyens boobaa nag ñun nag ñu ñëwaat taxaw ndax xëy na suñu loxo am na fu mu jot foo xam ne yéen seen loxo jotu fa su ko defee loolu ngeen jàpp ci kon wax dëgg yàlla ñun suñ euh, sembrom def na euh, yéen ñi nga xam ne yéen fi ñëw ñu leen di sant lu baree baree bare ci euh, choix boobu nga xam ne def ngeen ko ak taxawaay boobu ngeen ngeen xam ne am ngeen ko léegi nag apportu service technique yi gën naa dalal suñu xel si parce que ñun bu ñu waree def diagnostic bi bu dee population yi rek lañ bàyyi amna na xam amna fu seen yàq xam-xam yam mais partie technique kenn ku nekk gis nañ ne tey waa urbanisme jël nañ seen seen seen seen seen responsabilité par rapport au problème l'éducation jël na responsabilité par rapport ak problème bi PRN euh, as as ASDET jël nañ seen responsabilité par rapport ak problème bi association bi nga xam ne da suqali Sénégal sax moom wala jàppale Sénégal moo kii moo ngi mu ngi fi ñëw teew commune bi aussi partie technique eaux et forêts bon bu ñu limee mën nañu juum waaye mën nañ ne partie prenante yëpp nga xam ne war nañoo mën a taxaw jàpp ci liggéey bi ñoom ñëpp ñëw nañu teew te kenn ku nekk joxe nga sa xalaat kon ñun nañ ne li ñu def tey am solo ci comi euh, commission euh, euh, le maire ak um, l'ensemble du du bureau municipal les conseillers sant nañ bu baax a baax a baax ci taxawaay bi nga xam bi am nañ ko ci liggéey bi ci forum bi aussi dana doon lo xam li lu war réussir la ñëpp wax nañ ko ñun xam nañ partition bi ñu ci war a joué wax nañ ñu li ñuy xaar ci mairie bi loolu incha allah dinañ ci dox suñu kéemtalaayu kàttan sensibilisation bi nag ku nekk da ciy jàpp effectivement population yi ak Touba ni mu toll du doon lu yomb waaye yaakaar naa bu fekkente ne kenn ku nekk rek def na la mu war a def incha allah liñ ci bëgg dinañ ko am ci défi yi incha allah dinañ ko relever ñuy santaan nag bu baax a baax baax la presse ndax. Nous kenn ko ne ci difficulté à chaque fois Ça su nekk dañ fi ñëk ñoo di ci bi ak difficulté toujours ñu et su pour di relayer information euh, Touba il faut que nous ñu japp ci projet bi ndax Touba dafa am yuko yuko yuko yuko dal di ville bo ans mais si nous croissance bi croissance démographiquement. si nous croissance au point de vue des habitations nous nañ de bi comme ni ngeen ko waxee ni ko assainissement amul électricité Nous na fi yu qui bare ne nous euh, am fekk na sax ñu ngi ci woon xëy na dañ ci néew doole waaye defe naa bu fekkante ne kenn ku nekk jàpp na rek kenn ku ne jouer partition incha allah suba euh, sama borom danañ mën a dimbale ba yenn défi yu bari bari ñu mën ko relever même xam naa ne tëb tëb relever lépp loolu utopie la ndax lu nekk dañ koy construire progressivement rek di dem. am na nag ay xalaat yu fi feeñ yoo xam ne mairie bi may na ko xel ndaxte ñi fi intervenir wax nañ ne ñu fexe ba lii ñu dugal ko ci curriculum bi wax nañ dëgg parce que boo bëggee tabax dara da koy tambalé ci ndaw ñi ndaw ñi buñ ko xass mu ñu leen forger ak loolu buñu maggé conscience bobu la ñam duñu xam leneen wax nañ dëgg aussi ay personnes ressources yu nekk ci dëkk bi ca bëgg Touba ca wara japp ci liggéey bi ni ko sëñ Ahmed waxé sëñ Ahmed Tidiane je crois que ñoo ñëpp ay ressources la yoo xamné inshallah dañ leen pêcher fuñu mënd di nekk ñu jéem a dem jël leen parce que c'est un système inclusif bo xamné wara ñu bàyyi kenn ku ci mëna japp rek dañ la wara wo nga ñëw japp ci liggéey bi bu loolu weesoo nak ñu sant bu baax comité qui la commission de l'environnement ndax kat gis nañ ne ñu ngi fiy piloter ay projet yu bari ñu ñëw fii yoo xam ne amal na njëriñ dëkk bi certes am na ñun fi développé xëy na la am ay couac am ay jafe-jafe mais je pense que sunu su peut-être sunu échec yooyu ñu am ci côté boobu moo ñuy dimbale pour ñu am réussite moo ñuy gën a jox engagement waaye nag ñuy sant nag bu baax ci biir commission boobu sëñ Mor parce que moom il faut ñu defal ko spéciale c'est vrai que sëñ Cheikh Abdou mooy président mais bari na ci lo xamné liñ li ciy animé sëñ Mor mi moy taxaw diko ko animé au niveau de la commune donc il vraiment a vraiment defal mention spéciale bu le weesoo taxaway benen bi nga xamné am nga ci bir ci ci biir liggéey bi nga à chaque fois da ngay nek en avant-garde japp ci liguey bi di ci di ci di ci sonn guddeeg vraiment merci encore une fois de plus ak sëñ àll di santaat sun sëriñ si bu baax li leen wax né ci turu donc sëriñ Abdou Lahad Ka mën nañ kon japp né bisab tay bi defar nañ ko ci tam lañ ko alhamdulilah àggale nañ ko eh, ci tàmbali nañ ko bisimilah rahmaani rahiim te di koy àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin